ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëf bu baax sunu mbokk internet yi ñuy suivre di ñu topp saa su nekk totaayu ñu suñu site bi ñu koy tuddee 221 people ñu ngi bëggee ñëpp nag di chaar ñëpp di jox ku nekk euh, sa wàccuwaay tey dama fas yéene dalalaat fii benn beneen gan ñu koy tuddee Serigne Cissé mu Serigne Babacar ñu waxtaane ci lépp lu bokk ci actualité mais euh, ñaan du ci mën a ñàkk il faut ñu dëxëñ ko ci boolewaale ko ci ndax yéen a soxla il faut ñu boole ko ci ngeen am lu ngeen taataan ngeen jëriñu damay bàyyi mu ko mbokk askan wi bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wasalaamu ala asrafil xalq seyduna muhammad sallallahu alayhi bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ci site bi di 221 ñoo ngi nuyu mbooleem soppe mbooleem xarit mbooleem ànd jàmm ñoom ñëpp bàyyiwunu kenn nuyu nañu ñëpp di leen siyaara di leen nuyoo nuyoo bi gën a sakkan gën a yell te baax ci ku ne muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Seydina Cheikh. jërëjëf euh, sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ñu ngi lay fay bu baax ginnaaw nuyu set yu sell yooyu noonu te ànd ak dal ñu ngi lay fay bu baax dañuy fas yéene dugg ci suñu émission nag wéy la xuus fi may tàmbalee nag euh, lii ñuy wooye sobe te ñun ñëpp ñu koy dégg te ñu bari xamuñu lan la làmboo ndax sobe sëñ Cissé am na loo xam ne mën naa tëj nit ci boppam sobe ci boppam ndax mën naa tëj waaw fa tabaarakallaahu naa Cheikh question boo ma mos laaj bii daf ma caa gënal muy ndax wàllum sobe mën naa téye nit ba nit ka du am dara sëy naa Cheikh sobe dana téye nit ñu bind bàqara ba minal jinnati wa naasi nga koy sangoo doo gis résultat nga ne sëriñ bee aayut te fekk lii la yàqal mu ngi ci sa jëmm la waral loola nag mooy ne ba léegi dañuy dellusiwaat ci li ñu paase woon dañuy dellusiwaat ca la ñu paase woon muy wàllum lan wàllum rab rab nag li may wax ñaar mën na ca am am na boo xam ne mën naa nekk ceddo am boo xam ne day bëgg lu sell ci biir bëgg lu sell googu ñu yëkkati aw turu yàlla jox la na la am sangoo ko ci diir bi nga jël tur yàlla woowee di ko sangoo wala nga koy sikar rawxaan bee day fippu moom jël sa xel def ko ci jigéen ñi loola it ñu koy gis nga féeg àndoog jigéen doo am jàmm kon sobe day tëj nit ci mboole mi façon bañ ne dañ maa liggéey te fekk sobe la tee dem waaye ndax sobe soso bu nekkee ci yow nan ngay def ba mu dëñ ci sa yaram alxuraan la ñuy seeti wala xàmb ya la ñuy seeti wala lu ñuy seeti waaye lu mën a dëñ la waaye sobe daal mën naa téye nit ba mu foog ne dañ koo liggéey waaw sëy naa Cheikh. jërëjëf euh, kon euh, loolu leeral la woon dégg ngeen ko ci sobe pour ñi nga xam ne xamuñu li mu làmbo euh, leeral na ko bu baax damay dugg ci beneen ponk wéyale ba léegi dañuy dugg ci mbiru coowal suuf dañoo seetlu mën naa ne atu ren mii nii dafa gën a laa daw mi donte du dee mu doon amit ren suuf si bëree ci suñu biir réew mi bëri na ba fi mu ne nii foo toog ñu ngi koy kii mu di biir ndakaaru ak li génn Dakar ñu ngi ciy dégg ñu bari nag mais dama ci cité ku ci mel ni maam booy ñu ngi ko ciy dégg ci coowul suuf si demoon nañu ba ñi nga xam ne ñoo ñu féetaloon ci maanaam ndawul penc la ñu ci mel ni ñoom euh, Ousmane sonk ñoom it ñu bokkoon nañu ci ñuy kaas Barthélemy Dias coowul suuf si sëñ Cissé ñu del siwaat waaw euh, man damay faral di wax man sëriñ si Cissé mu Serigne Babacar Sy ne lépp nit ñee waxtaan bañ dénk la ko loo ciy def donte ne yaa yor dogal ba loo ciy def ña nga ànd nañ ko yëg te coowal suuf ku bëgg a gàtt fan boole ko ci say wax maanaam ku dund ba dund bi sàppi la yow dee rek nekk ci sa xel mi boole ci coowal suuf di ko xëccoo maa ko moom moomu ma ko ndax dafa bëri conséquences yu ci ne ñu dégg ci ku mel ni Mame Boye jaaw mi nga xam ne sunu xarit la sunu soppe la sunu waay la déggaat ci doomu soxna muy sëriñ Basiru Abdou Khader di porte ci yoon sunu maam Cheikh Mat Bamba ñu dégg ko ca bam def ci ay leeral ndax nañ ne weddi tuuma de bokk na ci ñu ne la yaa def nga taxaw ne defuma def ga koy def nag du ak ragal waaye jox nit ñi cër la ñu déggaat ñeneen ñoo xam ne lu ci mel ni Sonko dégg nañ ko ca Barthélémy Dias dégg nañ ko ca coow li bari lool te wàllu suuf dafa doy waar boo cay wax te sa ngem bu dëgërul maa la ko wax fi sëy naa seex sa fan mën naa gàtt lool sañ bas biñ ko waxee ci coowal suuf sa ne man fi ma toog laa toog ñoom ñoo ma laaj samay këyit def ci sama tur jox ma kon moom deful dara waaye damay wax ni nit buñ la wóoloo jox la dénk la looy def lu ne war nga ko settantal ndax ñala doyloo ba jox la ko boo ko defee rek mu gën sëy naa seex jërëjëf ci coowal suuf soosu laay desandi mu di kaaw littoral bi ñuy waxtaane boobu ba léegi te fayagut wax nga ko ci sa biir yi wax euh, lii di maanaam euh, doomi soxna di sëñ bas Abdou Khadre di porte parole di yoonu murit ci sëñ bas euh, Bassirou Mbacké di suñu njiit ñun ñëpp bëggoon naa xam ndax coowal suuf sii nii rafet na ñu ciy dégg kilifa bu mel ni sëñ Bass Abdou Khadre. waaw sëriñ Bass ca déggin wañ ko ci dégg. xam nañ ne doomu soxna la waaye bañ ko ci déggee mu bañ nit ñi di ko wax di yaatal mu woote conférence de presse média bi ñëpp dajee fa mu wax ni mbir mi demee kon kookee bëggul muy lënt ndax kilifa du dugg ci ay détails ndax waxoon naa le ci benn émission ne nit ku nu yaakaar am ñu topp ci sa ginnaaw wartu dox ci foog naa ak yaakaar naa ndax lu tax loola ñi topp ci sa ginnaaw a tax njaboot nag bu bootoo ci sa ginnaaw am na loo xam ne sañatoo koo def sëriñ bi moom bi mu génnee wax dafa wax ne man de dewuma ci kenn dañ maa yëkkati may ma defal ma ci samay tur jox ma bu doonee nag moom moo jóg di xëccoowal boppam ci suuf danañ ca wax waaye moom dañ koo may ña maye nag te lañ leen a dénk ñoo ñoo nekkul ci dëgg ndax loo moomul boo koy joxe war nga yéegoog ña moom bu ko defee ëllëg du xam ay ay ay ay lëj-lëj waaye boo jëlee rek suuf joxe ko te ña ko bokk ak ko day indi ay détails boo bëggee dugg ci ay détails nag kan ko jox mooy am fulla ju toll ni ne man yéen a ma jox ñaanu maleen te sëriñ bi lii la wax bu doone dafa demee neneen ni nag ci conséquence dëgg rek nu ñor ñu dëgg la nuy wax bu nuy dee dañuy wax dëgg bu nuy dund dañuy wax dëgg waaye ña maye te moomu nu ñoomi kese ñoo ñoo nekkul ci dëgg nan ko wax na wax ji jeex ñoo ñoo nekkul ci dëgg sëriñ bi deful dara de ñoo ñoo nekkul ci dëgg. jërëjëf ci leeral yooyu sëñ Cissé mu sëriñ Babacar dañuy wéyandi ba léegi des ci seeni question fi may jëm nag ci mbirum papier la olof Njaay di ko naan këyit dama cee for ci nag nag dégg ci lu doywaar loo xam ne euh, da nga ko ciy def lu màcc ayib dégg naa mbirum kayit moom duñ ko doon xëccoo mën nañ koo bàyyi kii kii di sëñ Cissé ndax da ciy def lu doy waar mbirum secret papier sëñ Cissé euh, nga gën cee leeral gars yi ndax dégg naa mbuut mu doy waar nga ciy def. sëy naa Seex gis nga turu yàlla. 99 la. ak bi ñu nëbb muy cent muy téeméer. turu yàlla nag boo toppee wu ne nga jël ko di ko wirda mën ngaa bañ a am ijaaba xam nga lan mooy ijaaba mooy maanaam tey ci tey ndeg yàlla tere fal yaxonsu bu ma ne woon kër gii day takk bu dee maa ngi ijaaba kër gii day takk loolu sun borom defal nu ko ñu am benn tur woo xam ne dañ ko jëlee ci kilifa di tarbiyoo tur woo ba tur woo wa nangul nu mooy waral soxla bu ñu nit mën a jox na nga nekk bitim réew na nga nekk France na nga nekk itali nekk nekk na nga nekk kanada na nga mën a nekk Juin foo mën a nekk donte ne am na ñaari tur ci yow tur bi la sa bàyyi li xam ci sa nopp ak turu surno bi nga xam ne lañ lay faral di wooye bu nu amee boobu tur tur wi ñu jox nangul nanu buñ ko liggéeyee sun borom da defal la nga bëgg quatre vingt dix tur la nag waaye nga topp ci benn tur tarbiyee ko ba tur wa nangul la ci par exemple nga doon liggéey jalaal ismu jalaal nga liggéey jalaal ba jalaal nangul la wala nga liggéey siru latif ba latif nangul la soxla buñ la wax nga dugg ca boo ca duggee rek borom bi faj ko maanaam ci exemple laa la jox looloo waral soxla bu nu waay wax ci këyit ak lu mën a doon sax doole Serigne Babacar Sy du nu sonn ñun yaakaaru lu dul lii lu nu am lii ñu ko jox léegu-léeg nit dina rate ci menn mbir nag xam nga da nga dee dem ci dëkk ñu ne la seex nga dem ci dëkk ba gaa yi tut wax seex dañ koy tayal dagg tur tur ñaar yooyu nag bu dee dëkk ba lañ lay wooyee ak li la sa baay di wooyee bokkunu nga nekk itali man ma nekk fii ci Dakar la la waat itali di wooyee bokkut ak li la waa Ndakaaru di wooyee ma xem ci li la waa Ndakaaru di wooyee rek doo am dara Seydina Cheikh da ngay fexe li la waa Italie di wooyee waa Sénégal gii di la ko wooye nga boole ñaari tur boo composé boo tuddee ismu bi rek def la ngay def rek suñu borom da koy dimbale ca la muy wut ala ak lu man a doon nag. mais du ma des foofu damay jàll ci beneen ponk bu boo xamante ni bu yéeme la mu di sondeel bi sondeel bi it yàlla dala ci may mënin boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy waxtaane te il faut nga del il faut nga del siwaat ci nga gën a leeralaat gars bu baax baax secret bi ak mbóot bi nekk ci biir li ci dëxañoo lépp. xam nga xam nga sëy naa Cheikh ba léegi dañuy des ci alquran ndax dama dee toog a toog fii ci sama kër di gis yenn image yoo xam ne sama yaram day daal di daw te gis nga alquran sun boroom lim ci dëxëñ dëxëñut ko fenn téeréeb yàlla bi boo ci bëggee not nit mën nga cee not nit bam tëdd ba tàlli ñaay yi téere bi yàlla bi boo ci bëggee dimbale nit man nga ko dimbalee ba faw yeneen yi ñuy wax nag gëmloo ko def ko ci xelu nit ñi ay erreur la sëy naa seex loo gàtt gàtt euh, euh, tànk dox nga dégg ne kii de alal ju bari la yoroon waaye danoo toog a toog gisatuñ alal ja alal ja ne kooke jaarewuñ ko ci alxuraan gis nga alxuraan yàlla ji képp ko sun borom defal nga gëstu ko ba xam lu ne la muy dox ci nit ndax ñun ñëpp bokk jàng alxuraan waaye naa Cheikh mën naa bind faatiha léegi taal faatiha mu tàkk man ma bind sama faatiha taal faatiha bi du tàkk te même faatiha ñoo bokk ihdina siraatal mustaqim ba wala daalin amin Seydina Cheikh loolu la bind Serigne Cissé ñëw bind faatiha ba wala daalin amin te ku kos almet ci du tàkk baatin lii mooy baatin wax naa leen ne Serigne Mansour sama yaakaar jadee nee na baatin feeg demul ba mën a jéggi frontière du baatin ndax nee na nit dana nekk ci géej di la di lab nga nekk fi nga nekk daal di ko ñoddi mu daal di génn loola baatin mooy def loola waaye gis nga ci li ma lay wax ci sondeel bi méttiwul sax sëñ naa Cheikh sëñ naa Cheikh bu ma la waxoon xaalis la koy joxe da nga naan déedéet te chaque jour nga toog def ko billaahi la si laa ilaha illaa huwa nga toog def ko te saa soog buñ la waxee la ca ne boo ko xëyee def ko teg ko ci taal wallahi la xasim da ngay am xaalis force te chaque jour ku yeewu dana xëy def ko ci réew mi adduna wërngal këpp amun nit ku ñuul nit ku weex ku xëy yeewu danga ko def. du ndekki Jóob la sant du ndekki te ku xëy dina ko def te siru xaalis la. billahi lazi laa ilaha illa ku xëy dina ko def te baa ngay tëddit dinga ko def te lu yomb ngay def chaque jour boo ko defee boo xëyee téye xaalis force non gis nga loola aajuwul nga jàng aajuwul nga ñàkk a jàng aajuwul ngay jullit aajuwul ngay chrétien ku ne mën na ko ku woote bëgg ko ñeme ko ñu wax la ko te compliqué wut te boo ko defee doole sëriñ Serigne Babacar yi boo gisoon alal foo ma séenati ci internet bi wax ma musiba ci wàllu sondel bi it amul amul jullit amul chrétien ku ne mën na koo defal boppam te boo ko defee tàkk ba àdduna yëg la maa ko wax man Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy nee naa la bokk naa ci ñi nga xam ne saa su réew mi yëngatoo dinaa bokk ca ña ñuy seeti. loola sun borom dogal na ko ki ko waral ci man nag kenn dong la muy doomi Serigne Babacar Sy ji Serigne Mansour borom daara yi moo ma dimbale waaye nag sëy naa Cheikh xaalis jafewut sama papa moom waxoon ne ma wuta yàgg waaye am du dara boo doxee nag ba daje góor yàlla mu waxal la yu bari fii ngay gis benn waay buy màndi di tërëf di di dem ak dikk nga xëy suba gis ko ba nga naan waa est-ce que kii laa xamoon dangay fekk ku doon dof nga soppi ko mu nekk mit waaye li ma la wax nii moo ci nekk sëy naa Cheikh euh, li ñuy li li ñuy tàggatoo mooy ne a gën a bàyyi waat xel te gën a séddante waat cër te kenn ku ne am na wàccuwaay bu ko yàlla jox wàccuwaay bu ko yàlla jox nag boo ko ci bëggee wàcc yow yaay wàccuwaay moom du wàcc ñaareel ba ngeen di moytu borom yére yu woyof yi dajeeg nit mu sol benn perkaalam bu weex tàll nga am loo ko bëgg a jàppee te fekk yaa ngi alak sa bopp ñaareel ba nga fekk nit ku toog ci àngal am nu mu mel dama leen di jox misaal ci sunu maam Cheikh Omar sunu maam Cheikh Omar ci dundam fu mu musaana dem danga koy gis mu sol yére boo xam ne buñ ne kii Cheikh Omar la day dem ba pare ñu doog xam ne Cheikh Omar a jaaroon ci dëkk bi te nitu yàlla yi fi yi fi feeñ moo leen moo moo wax seenu feeñaay kon nanuy bàyyi wante xel te séddante waat kenn ku ne wàccuwaay bi ko yàlla jox nga jox ko ko ñoo ngi koy ñaanal ñëpp danaa leen waaqiru dëxwaana xan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum ba yeneen i jamono incha allah ndem soob na yàlla